ñun yàlla dafa def ñu bokk ci ñu ko sos avant dekkal ngor boobu ba léegi ñu ciy liggéey waaye mel ne gi ñi àndal ak ñi taxoon ñu jóg gisuñ ci seen bopp loolu bokk na ci tàmm jóg tey ngir naqaru lool naqaru lool ba noppi nag waree na bis na nga tey damay taxawal samay activité ci biir parti APR. ginnaaw bi nga xam ne euh, militants yi nga xam ne maa ngi daan am nag ñoom depuis boobu ba léegi jokkoon na ak ñoom bañ dëppoo ci kaddu moo tax ma wax ne Sénégalais yëpp ak ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew te xamoon Moustapha Bousso Touba Guédé nekk responsable APR xamoon ko ci APR gis na ko tey taxawal na bépp yëngatu boo xam daan na ko def ci parti bi. dañu am ñu topp ci suñu ginnaaw. ñoo xam ne war nañu am ay financement am ay liggéey yoo xam ne war nañ ci mën a yëngatu ngir mën a demal seen bopp ñun loolu mooy tax a jóg waaye nekkul koo xam ne dañuy jóg rek ngay may xaalis noonu rek ñun dañu am nañu taxoon jóg moo ñu dugal ci politique te loolu bu ñu ko mënut am ci parti bi ah, ba ñi ñu àndal dem ba jàpp ne waxtu wu ne yow yaa ngi yor loo xam parti bi jox na la ko jox na la ko te àggul ci ñoom dem ba nar a yàq sama diggante ak ñoom. ndax it ngor rek lañ ma toppee nag ndax lu toog man juróom-ñaari at nga topp ko nit ki rek kooku ngor nga ko toppee bu ma demee ba xam ne jaarootu te xam naa ne sax waxtu wu ne bu ma leen soxlaa jot leen waaye dafa am a xam nit ki bu ko nangu war nga teg ko jaarootu ndax it gis naa fi ñoo xam ne bu ñu fi ñëw yàggut te am na fu ñu leen lu ñu leen jox cëral leen ko. part bi moom xam nañ ndax ñi nga xam ne ay tracement lañ yàgguñ fi. jox leen ay ndomba tànk muy moo xam góor wala jigéen xam nañ ne ñoo xam ne waaw parce que boo gisee même par exemple mu ñëwee ñu bëree bëri fi ñu ngi mer ba góox seeni seen kii parce que nag waaw lu toll la bi nga xam man mi rek gàtt gàtt euh, juróom-ñetti kaar waaw juróom kaar mobilisé laa ay jigéen yoo xam ne ñoo dem yan fa ngoon ñu ñëw ba dem ci heure bi ñu ngi wañ biir kër ga di ma xaar jàpp ne war na ma am lu ma leen jox loolu nag moo ma def sopp tey moo tax ma am naxar xam ne nit ñi boo leen yëkkati rek di leen yëkkati day yëkkati lay la taxoon um, la nga amoon yaakaar pour man leen faa yóbbu amoo day tax day jaadoo nga def taxaw seetlu nag li nga xam ne moom ngeen seqoon ci mbirum nga xam ne mbirum diggante sëriñ ak taalibe nga doxal lool te mbirum politique nga arrêté ko ci diggante bi. waa APR moom bis nag nga tey moom. moom dagg naa sama contrat ak ñoom. Hmm. loolu est-ce jàpp nga ni président mën naa am ndam ci dëkk bi. non fi nii moom lu ma la wax rek xam nga dañ ne ku fàtte ñi la faloon booy folleeku dalay bett fii nii moom damay wax yow moom pour mu am fi ndam moom ah, yokk ma parce que nag ñi nga xam ñoo sosoon parti bi te doon liggéey démb dañu leen ginnaawal te nag wala dañ ne ku loo fal booy folleeku dalay bett moo tax yaakaaruma ne ndam moom mën na ko fi am hmm. waaw. sa xel daal jàppagul ci kenn koo war a rejoindre jamono ji. non nii moom xam nga rek euh, nit euh, bu fekkee am na ñooy waxal ñu ma ñoo ñu ñu ma woo tey bëri na waaye rek man di décision bala ma koo jël il faut damay comme mbir mi du man rek damay boole ñëpp laaj leen ku ci ne ma proposé ñi nga xam ne wax nañu ak ak ak ak man fuñ ci d'accord rek ñu jëm foofu. Hmm, waaw fi ab ñaata diir nga nga fas yéene euh, def. ba xam nga comme ni ci campagne moom amul taxaw moom ñu bari jot naa leen tey waaye. xam naa suba laa war a am ñoom li nga xam ne ci la ñuy tënk ñu ba bu jubóo ci loolu.